بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم njiital sëriñ Moustapha ak rakam ñu ñëw teew fii ci bis bu mag bi di yowmal juma waaye ci weeru mag bi di shahr ramadan al mubarak fas yéene di ko wéyal ci bépp jumaa ci koor gi ñu fi ñu fi amal ay waxtaan yoo xam ne ay thèmes yu am njariñ la tey ñu tànnoon sunu mbokk Serigne Sam Bousso inspecteur yaakaar naa ñu bari dégg nañ ko wala ñu xam ko moom moo ñu war a waxtaanal ci asihatul muslim fi muwajahatil azmat maanaam jullit bi ana yan ngànnaay lay jël ay matukaay ngir mën a jàmmarloog yi nga xam ne si moo jàkkarloog moom ci ay crise al axlaaqiya maanaam crise bi nga xam ne si nit ñi am nañ ko ci wàllu jikko ak ci comportement ak ci melokaan ak ci sax social lépp daal dañu dégloo Sëriñ Sam inspecteur insha allahu taala danañu ko indil waaye njëkk loolu comme barkeelu nañ aaya yi nga xam ne si mooy wax ci weeru koor incha allahu taala sëriñ Mamor Fall incha allahu taala moom it moo ñu war a indil xasile gi nga xam ne si sëñ bi da ciy barkeelu ci weeru koor mooy yaa xayra dayfin incha allahu taala kon ñu mas déglu ko bismillah bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina mawlana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حديث على رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وحليلي سهر رمضان حديث على علي يوم اثنين عام حمزة عزر وثلاث مئة وألف ورحبت به وسلمت عليه بعاشي القصيدة فتقبلها مني وبارك لي فيها وجعلها فوسني في دارني allahuma rabba ramadana sallim li ramadana wasallim ni li ramadana wasallimu minni wasallimu minhu wajalu mutaqabalan yaa xayra dayfin ata bilbisri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi yaa xayra dayfin ata bilbisri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sairan abadan mukarraman bi xiraatahati wa sadadi muasaman inda rabbin la sharika lahu wa inda li tuqa wal hilmi wa rasadi la silta ma hiya aw sairin wa qaadiya aw taarin wa taarina axyaarin min alxaladi wa saafinan kulla saytaanin bimaamahu wa mudifan li sawil isaani bi safadi wa musiban kulla axsaanin nadiihu biha fi daari afidatan yaa musiban nakadi wa saahidan kulla min maa nafuusu bihi من جود مخن كريم نافع سيدي يا شان رب كريم فيك جاد لنا بليلة الخدر ساعة الفل والرخد إني أحبك حب الساعة ساعة لب من مالكي فيك إسهادا بلا أودي ذا توبة فيك أيضا ماديا أبدا بذكري والشكر والقرآن للأهدي إليه قد تبت في سبان عن رجب مجددا فيك فازهد لي بترك ددي لشد بأقصي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأهدي وسد بحبك وبسات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والجمد إني أحبك يا سار السيام بلا غث فأهلا وترهيبا بلا عدد إني أحبك يا سار السيام بلا غث فأهلا وترهيبا بلا عدد kon ñoo ngi leen di delloo nuyu di nuyu ñi nga xam ne si ñooy taxawe jàkk yi di imaam yeeg ñu taxawee ci noddi gi lu mel ne sëriñ Daam Njaay ak sëriñ Abdou Khadir Sànqe sëriñ Mandiaye Seck ñun ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di rafet seen taxawaay di leen sant di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa fan gudd wànd ak wér aju faj biir bi di saanan wa baatina tey waxtaan wi ñu ngi ko daa dara jaal borom daara ju ñu wax Baye Cissé Fall yabal na fi doomam ji ñu wax Ahmed Fall ñoo ngi koy sant di ko gërëm ak ñoom mboolem ñi mu àndal ñëpp comme niñ ko waxee woon ci njëlbeen gi rek euh, dañoo baaxoo ci weeru koor tàmbali woon nañ ko si sax ci jamonoy Serigne Mamor waaye ñu gën koo dëgëral sëñ Moussa ñëw gën koo dëgëral ñuy def ajuma jot ci weeru koor danañ woo benn boroom xam-xam mu ñëw doon gan goo xam ne bu ñëwee dana fi indi lu lu leer luñ mën a jàpp mën ko yóbbaloo ba déwén tey nag ñu invité sunu mbokk sëriñ Samb Bousso inspecteur yaakaar naa ku ko xamul dégg nga ko ci ay njàngaleem yu rafet ak ay conférence yu muy def ñeel xeet wi yépp kon Serigne Sam euh, ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci sunu ëtt bi nga xam ne mooy jumaa ji di delloo ñaanal nag njaboot gi te sëriñ Moustapha nekk ci bopp bi sunu borom may leen fan wu gudd ba ànd ak wér ba naal yi nga xam ne sëñ bi naaloon na ko bàyyi ko fi ñu am kàttan di ko gën a wéyal bu baax a baax ci kaw man akuk fekke ak tal defal ko mboolem julli yépp kon ngir bañ a guddal rek dañuy jox sëriñ Saam mu daal tàmbali liggéey bi incha allahu taala fii toog ci jotaay bi noo ngi leen di waa di leen ziyaare di leen balo àq di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ak bis bu tedd bi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu ci suñu jaamu yàlla yépp te jéggal ñu suñu bakkaar ñuy jiital di ziyaare Cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahullahu wa taala wa ayyadahu wa nasara ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te yokk ak yërëm waaye di fàttaliku ak ñaanal sunu kilifa di sunu lekkool sunu wëllëre sunu xarit lool muy sëriñ Mamor ko ñaanal yàlla yokk ko ay leer di ko ñaanal lépp loo xam ne yéene woon ko ci lu baax yàlla defal kàttan njabootam bi bu ñu mu mottali ko ko doon koo xam ne bu ñu nekkee ci barab bi xaw na am tuuti jeexit ci ñun di sant bu baax nag ci boole gi nu boole ci liggéey bi euh, xam naa dañuy ñëw rek ci waxtaan wi muy thème am solo boo xam ne te muy lu jëm ci al azmat muy li nga xam ne moom la ñuy ay crise walla fi soppiku jamono ni ñu ko tënkee ngànnaay yi jullit soxla aajowoo ko ngir mën a jàmmaarloo crise yooyu loolu muy tam bu mat a waxtaane loolu nag li ñu koy laltaaye rek mooy xam ne ne suñu borom subhanahu wa bi mu nu bindee bind doomu adama daa def ci moom am xel jox ko kàttan waaye rëddal ko yoon yoo xam ne ca la war a jaar yabal ay yonent yoo xam ne ñoo koy xamal fi mu war a teg tànkam nga xam ne ëllëg du mën a taxaw ci kanamu suñ borom ne ko xawma woon li nga bëgg ci man li yàllaa yakuna linnaasi ala llaahi xujjatan baada rusul loolu moo tax yàlla yónni ay yónent ngir ñu xamal doomu aadama fi mu war a jaar ak li yàlla bëgg ci moom ginnaaw ba ko suñ borom tàggatalee asamaan ak suuf jox ko xel jox ko kàttanu lu yaram jox ko lépp loo xam ne aajowoo na ko ngir mën a dund ci suuf si ngir jaamu suñu borom subhanahu wa waaye dundal suuf si huwa anshaakum min al ardi wa staamarakum fiha loolu la suñu borom sàkku ci doomu aadama ginnaaw ba mu sàkkoo mu jaamu ko jaamu boo xam ne bu sell la wa ma xalaqul jinne wal insa illa li yabudun kon saa doomu aadama demee nag ba yoon wi nga xam ne moom la yàlla rëdd bu ko tàmbulee wàcc rek tawaasun bi mu waroon a am muy équilibre bi nga xam ne moom la war a am ba mën a dund ci àdduna li du li ruuxam laaj mu jox ko ko li yaramam laaj mu jox ko ko mën a dund dund bu teey goo xam ne day taxe ci àdduna texe ci àllaaxira loolee saa bu ko wàccee rek li ñuy wax azma day daal di dugg wala crise day daal di dugg mu mel ni nag dañoo tollu jamono joo xam ne li suñu boroom sàkku ci doomu aadama rëddal ko ko ñu baree bari àdduna bi dañ koo wàcc topp suñuy bakkan ba tax lu baree baree bari ci li yonent yi jàngale ca ki ci mujj di muhammad sallallahu alayhi wa ñu di ko wàcc loolu nag day mel ne lu àdduna baaxoo la mooy am njàngale ñi yàlla yebal lu muy gën a yàgg nit ñi di gën a sori seenu njàngale moo taxit yàlla ci ak mbaaxam muy yebal ay mujaddidiin ñoo xam ne dañuy ñëw ngir yeesal diine muy nit yàlla yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw yonent yi di fàttali nit fa mu war a jaar di fàttali nit melokaan wa nga xam ne noonu la war a mel waaye nag téewul ba léegi doomu aadama di wàcc yoon bi ko suñu borom subhanahu wa taala xàllal ba tax na àdduna bi bari lool nag ay crise fi ne nii ay azamaat li ñuy wax ay crise kon nag bu ñu àggee ci jamono joo xam ne moo xam ci wàllu ruux la wala ci wàllu jikko wala ci wàllu sax koom-koom wala ci wàllu dundin wi wala ci wàllu politique bi foo ci xool danga fay gis ay crise yu baree baree baree bare loolu nag laaj na kon jullit bi moom ngànnaay lan la war a soxla lan la war a gànnaayoo ngir mën a jàmmaarloog jafe-jafe yooyu ngir mën a jàmmaarloog crise yooyu kon loolu mooy thème bi nga xam ne tànn nañ ko loolu nag liñ ci bëgg a waxtaanee xam naa dañ koy tënk ci ñetti tomb crise boobu danañ ko jéem a wane ci anam yu wuute joxe ci ay misaal bay man cee teg loxo ndax li ngay jàmmaar lool da koy xam ba noppi kon danañ waxtaan tuuti ci crise yi fi mu toll ci àdduna bi buñ ca jógee jéem a xool crise yooyu nag lan moo ko lal lan moo ko indi ndaxit it nag toll nañ foo xam ne eh, jamono ji ubbeeku na laaj na nit ki di jéem a xam li muy dund ak li muy gis lan moo ko waral du doy rek nga ne ay crise am na crise ci wàllu politique crise ci wàllu social ci wàllu économie ci wàllu moral yooyu am nañu rek waaye da ngay xool fan la war a jóge crise yooyu ndax mbir boo xamee fa mu jóge di nga tax nga gën a xam noo koy noo koy jàmmarloo ko la ca mujj nag ñu jéem a xool yan gànnaay moom la jullit bi war a gànnaayoo ngir taxaw ci kanam crise yooyu ngir mën a jëflanteeg moom ngir mën a jàmmarloo moom bu ñëwee ci li nga xam ne kon mooy li ñuy tuddee ay azamaat te mooy ay crise cañ jàpp ne nag ba ca ëpp solo gën caa doy yu bare bari di ca juddoo mooy crise morale mooy lu jëm ci wàllu jikkoo ak ruux ndax lu baree bari luy dal doomu day fekk moom ci boppam ruuxam ak ay jikkoom moo koy aar mooy tataam saa bu demee ba am jafe-jafe rek lu ñëw dal ci kawam bari na di crise buy am ci wàllu social mooy ni ñuy dundee la ko waral mooy yàqu-yàqu yi jikko ak crise bi am ci jikko yi bari na crise bu am ci wàllu koom-koom walla moo am ci wàllu politique la ko waral ci nit ñi la dellu kon jiital crise boobu nga xam ne mooy crise morale wala boog mooy yàqu-yàqu ak jafe-jafe yi am ci nit ñi ni ñu war a dundee seen jikko loole moom lañuy jiital wane ni mu ni muy manifesté woo ci suñ jamono ji ñu toll xam nañ ne askan wi ni mu tëddee bu doon ne ab ak kër la nga ne am na ay néeg waaye dangay néeg yooyee dafa am ay móol yu ñu taqale ba néeg am leneen am leneen am bu ñu bëggoon a misaal ab société móol yi nga xam ne moo ko jàppale dañuy wax ne mooy famille mooy ak njaboot mooy njaboot kon dañuy xool crise bi am ci nit ki diggam ak boppam waaye diggam ak njabootam biir famille crise yi ci am doo nga xool crise yi am ci wàllu nekkiin wi wàllu koom-koom bi wàllu politique bi li jiitu ci nit ñi nga xam ne boo ko dee seet jafe-jafe bu rëy la te ñu toll ci mooy li ñuy wax taqdiisu sarwa maanaam dañuy dem ba am am ñu def ko yàlla daanaka maanaam jaamu alal jaamu alal ci crise yi jiitu la yi nga xam ne boo seetloo nit ñi da ko ciy gis loola la muy jur mooy nit ki na muy def ba am dootu ca seet amin wa dootu ca seet jaadu na walla wala jaaduwut nañ am rek loolu crise bu rëy rëy la boo xam ne ci àdduna bi li may wax nag dama koy tàm ci àdduna bi laa koy tàmbulee wane ne du ci senegal rek waaye ci àdduna bépp la xëy na nag ci senegal lañ nekk bu ñuy wax dañ ci teg baaraam ci biir senegal waaye li ñuy wax ci àdduna bi la nekk jël gi ñu jël alal def ko mu mel ne léegi yàlla la daanaka dañ koy jaamu ba tax na ku ko am dootuñu seetati fu mu ko jëlee léegi nit ñi yittee wootu nit ki nam def ba am alal waaye am na ko rek moo leen yittee léegi ci ñu baree baree bari bari loolu nag tax na anam yi ñuy wute alal ca jaaduwut bari lool léegi ci day mel ne sax dafa jaadu léegi boo seetloo lu mel ne carte tey dafa mel ne léegi waxatuñ ci sax te mu doon loo xam ne ñu baree bari ci suñu ndaw yi léegi moom lañ deful liggéey xëy na ku yàlla dimbale nga dëkk Touba doo xam phénomène bi dëgg-dëgg ni mel waaye boo génnee Touba rek dem ci ne dëkk yi kees yi nga xam ne fa lañuy ñuy defee carte googu da ngay fees xale yi xale yi wër ca kat sax dañ ñuy wax dañuy wax ne ku am fukki at ak juróom-ñett ku ko amagul waroo koo def waaye boo fa demee xale yu ndaw nga fay fekk ñu du ko def. rawatina ci wàllu yi ñuy def ci ay fas yeeg yi ñuy def ci wàllu football bi ak yu demee noonu te loolu bu ñu seetloo bi mu fiy doog a dugg si ñëpp a jógoon di ko xeex waaye ñi ko fi indi ñoom it dañoo jóg xeex xeex bu yaatu ña ko doon xeex maanaam kilifa yi diine yi ak imaam yi nga xam ne xeeti carte yooyu bu muy dugg si Sénégal mooy yu yu mujj yi moo tax di wax damay bañ a jaar ci tur yi di leen defal ay publicité. waaye bi mu fi doog dugg si imaam yi jógeen di leen xeex ñoom dañoo fay alal ju baree bare ngir nit ñi dootuñu déglooti imaam yi yaakaar naa ñi nga xam ne man am nañu fàttaliku danañ seetlu théâtre yu amoon théâtre yoo amoon yoo xam ne imaam yi nañ leen tey melal lu doy waar la woon booba te dara warulu ko woon waaye gisoon nañ ne ba ba fi carte ki duggee imaam yooyu jóg di ci defi xutba di ci di ci di ci di ci wan nit ñi ne dafa araam nga gis ca théâtre yi dañuy wan ne imaam yii leen koy tere ñoom ñoo koy def waaw bu ngeen koy fàttaliku théâtre yooyu dafa yàgg waaye ñi koy fàttaliku dañuy gis ne booba la leen ca jubloon lépp mooy lii dugg si ñii leen koy tere ñoo leen ci jiitu dañ koy def ci suuf ba tax bu ñu leen bu ñu leen koy tere bu leen leen déglu kon carte tey nga xool tey Sénégal wax nañ nga xam ne chiffre d'affaires bi nga xam ne société biy def mbirum carte ci Sénégal def na ko ci 2022 wax nañu àgg na ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay milliards waaw ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay milliards xam nga loolu kon mooy wane ne bari na lool yaatu na lool nga xool geneen yeneen anam wut wut alal mel ni ñiy ñiy jaay seen bopp loolu tasaaroo lool nga xam ne ay ay junni junni la maanaam bi ñu ko eh, recensement yi ñu ci def ci yi ñu xam nga xam ne yu ñu yu ñu may ñu di ko def lañ àggoon nañ ci ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak nàngam ci deux 2016 te loolu mooy ñi nga xam ne rek yoonal nañ leen ko bind leen xam leen waaye ñii xamul ñu di ko def kenn xamul nu mu nga xam ne kon ba ñoo dem ba ci kër yi sax léeg-léeg nga gis koo xam ne dana xam ne kii kat doomam la wala daraam la mi ngi koy indil alal waaye jéemuta toppatootu alal nga ñam koy wute bari na ñoo xam ne dañuy ame alal moo xam ci njaayum dorog la wala ci leneen bu ko xasee am rek fàtte nañ na mu ko amee bu boobaa amin wa loolu nag mooy jaamu alal dëgg dëgg dëgg jël alal loolu nag crise bu mag a mag la boo xam ne bu tasaaroo ci àdduna loolu it li mu waral mooy bari na jalgati gi am ci alali jàmbur ci sàcc ci agression ak yoo xam ne tey dañ koo defub liggéey far ngir ah wutiinu alal rek ndax dem nañ ba jàpp ne ñëpp dañoo war am alal loolu am na yeneen yoo xam ne phénomène yu yoo xam ne li ci léeg-léeg fi ñu teg alal moo ko waral bari na koo xam ne la ko sonal mooy gëm gëmloo gi ñu ko gëmloo ne boo amul alal tekki woo dara léegi sax gone yi ñu ngi résister di jàng góor góorgóorlu waaye bu njëkkoon boo yoree récepteur di jàng dañu jàpp ne yaa jëmul fenn waaw da amagul foo dem moo tax ngay jàng waaye léegi fa xam lu ndaw ñu bari loolu génn nañ ko seen xel waaye bari na ñuy génn di dem di ci loroo am na ci bu ñëpp waaye bari na ñoo xam ne fi dëkk ñoo leen mayul jàmm wala seeni mbokk ñoo leen mayul jàmm wala seeni ci boppam ñoo leen mayul jàmm jàpp ne boo amul alal rek yow tekkiwoo loolu nag di doon loo xam ne jaamu gi ñuy jaamu alal moo ko waral loolu nag àdduna bépp la tasaaroo waaye boo ñëwee ci senegal ba tey di gis jeexi ji bu ñëwee ci nit ñi liñ ciy seetlu muy li ñuy tudde nazaa fardiya te mooy bopp sa bopp maanaam loolu li ñuy individualisme nga xam ne bu njëkkoon nit ki day bàyyi xel fi mu bokk day bàyyi xel ñi mu dëkkal day bàll xel askan wi day bàll xel mbooloo mi day bàyyi xel fi mu dëkk lépp mu di ci mu leen muy seet inter seen intérêt àdduna nag dem ba ñu baree bari seen intérêt yi bopp rek la ñuy xool loolu nag crise la bu mag boo xam ne moom it euh, bari na lu mu indi mooy nit ki daanaka war ma ni manqué léegi war ma gi war a war a maal waajur yi war bi ñu war a war war mag ñi ak même ay teggin sax léegi bëreetul ndax nit ki boppam rek lay xool boo ndax ay teggin mooy yaa ngi xool keneen yaa ngi war mbaal yaa ngi bàyyi keneen waaye ba boo bàyyeetut xel kenn dootoo ami teggin te loolu it bokk na ci li nga xam ne ñi ngi koy gis ci nit ñi bu ñëwee ci famille yi muy njaboot yi loolu it dañ ciy gis ay jafe-jafe yoo xam ne ci àdduna bi da ngay gis ne daanaka ni ni mu nekkee lu sell lu ñu war a fonk muy ñii way way dencante orma jooju amatut boo gisee passé mi ni mel ci àdduna bi léegi dañ ko woyefal lool daanaka takk ak tekki moom moom naan am ndox la ñemale muy woyefal nañ mbirum sëy léegi ci loolu crise bu mag a mag la bu dee ci tubaab yi moom dañoo dem ba sax jàpp nañ ne ay caaxaan la léegi maanaam sëy moom day da leen di soob ñu nekk ci bu leen neexatu kenn ku ne dem waaw bu dee loolu tubaab yi àgg nañ foofu àgg nañ ci sax euh, France am na ay am at moo xam ne 96 dañoo waxoon ne ñeen ñeen fukki ñi judd ci 1996 ñeen fukki nit ñeen fukki gone yi judd téeméeri gone yi judd ñeen fukki juddoowuñ ci buumu sëy téeméeri gone yu judd ci 1996 loolu buñ ko biñ ko biñ ko biñ ko xoolaatee boo koy xoolaat ñu demee ba mu mi 2016 àgg na juróom-benn fukk léegi waaw 2016 juróom-benn fukki gone yi juddu 2000 yi juddu juróom-benn fukk yi juddu woon ci moomu sëy kon loolu nga xam ne kon moom sëy defatuñ ko dara loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal ak seegut waaye ku ne xam ne xet gi mi ñuy xeeñ ndax passé mi ni mu baree mooy na fañ tegoon sëy nga xam ne jaral nit ki muy muñ jaral góor gi muy toggoo ay coono jigéen ji di toggoo ay coono muy naqari nga xam ne def ko ak jaamu yàlla la loolu wàññi na bu baax a baax léegi ñu bari jàpp nañ ne bu naqaree rek war nañoo war nañoo feeti leneen waaw léeg-léeg sax léegi dañu àgg ci nit ñi di ko di ko damoo di damoo an am na nanga bi sëy léegi daanaka léegi dañ koy def ay tiitar loolu nag kon mooy àdduna bu bu bu bu jaxasoo bu bu doy waar lool ñu àgg sax nag ci lu ëpp nag dem ba ci tubaab bi loolu ko yàlla yàlla nañu ump mu non dem ba sëy ñu koy def diggante góor ak góor jigéen ak jigéen loolu dégg nañ ko ci eh, muy lu doy waar loo xam ne ñu dem ba mbirum mbirum mbirum mbirum taxawaal lu jaay sa bopp mbirum luwaa la waaye nekkatul mbirum jikko ak mbirum baax ak bon dañuy wax kay ndax legal na wala légalu ndax am nga ci kayit wala amoo ci kayit waaye baax na ak baaxut bari na yoo foo xam ne waxatuñ ko fa kon loolu lépp day wane mbirum sëy moom fi ko teg eh, am na crise bu metti bu ci am boo ñëwee nag ci wàllu politique moom crise bi ci am dañ koy dund waxtu wu nekk di gis li nga xam ne moo moo mooy ni ñuy tuddee guerre ak corruption ni mu tasaaroo ci biir mbirum politique nga xam ne politique moom jàpp nañ ne foo nekk rek loo am moo la fa war a bàyyi waaw koy àndalit ngir looy am moo war a tax nga ànd ak moom nit ki it buy wutuk pal ngir lu mu am mooy tax mu di ko wut loolu moom ñun fiñ ci àgg sax wax dëgg yàlla tubaab yi nekkuñu foofa ci lu bari ndax ñoom da ngay gis ko am ba noppi jéega dugg ci politique nga xam ne kon leneen a ko ci dugal pour defar dëkkam wala nangam waaye fii moom ñu baree bari dañ koo def wutukaay loolu nag moo waral corruption bi nga xam ne ki xës falu lu ci baree bari yitteem mooy wala ñamuy fal di leen la la seen yitte mooy nu ñuy def ba diggante bañ fay nekk ñu am alal ju baree bari loolu ngay gis koo xam ne yéen nekkoon fii ñu def comme ministre ñaari at ñett nga gis mu yor ay milliards loolu corruption rek moo ko mën a indi ndax nit ki lu ko salaire am mayut mu jekki-jekki am ko da ngay daal di xam ne amin wa jaaduwut kon corruption bi ni mu mel ci politique bi loolu crise la li ci doy waar nag mooy al musibatu isa amat hanat mbir mi bu bu maanaam musiba day dem bañ miin ko ba ba def ko lu normal fi maanaam loolu choqué wul kenn fi mu ne waaw maanaam dangay gis koo xam ne fii la nekkoon da ngay gis sax kuy tooñ diw maa ko daan ci man man la daan yennu ma doon ko jox muy añ wala nangam nangam wala maa ko luyeeloon at lañ koy fal ñaari at wala ministre mu ñëw yore milliard ñëpp di daw ci ginnaawam duñ fàttaliku ne moom daa waroon rus daa waroon rus su fekkoon ne société bi ni mu tëdd la tëdde da ko waroon làq waaye du ko làq ci dañuy xam ne loolu képp ku ne xam na ne na amin wa doy na waar ay ay ay ay marché ay demee noonu rek lañ lay lañuy def yow koo xam ne da ngay koo xam ne dañ koy créeloo entreprise jox ko marché jox ko bénéfice ba mu toog këram maanaam du xam sànce ba sax du xam lu mu doon sax far nga xam ne dañ koy ñoo dañ koy wutal kayit jox ko marché bi jox maanaam mu mu mu mu loolu yëpp mbirum mbirum mbirum crise la bu am loo xam ne ku ci ku ci ku ci bëggoon a wax day day day day day day yaatu bokk na ci crise bi am ci wàllu politique bi mooy intérêt bi ñuy jiital suñu intérêt yi maanaam intérêt personnel kenn ku nekk daal intérêt yi boppam daanaka moo ko tax di moo ko moo moo moo moo ko tax di dox loolu moom dafa dafa bari lool ci mbirum politique bi ak nag doxalin woo xam ne dañuy jàpp ne boo nekkee ci politique loo sañutoon bu dee ci politique sañ nga ko man day mel ne nit ki daal daa am ñaari dund dund gi ngay dund ci sa kër ak ja jàkka ja bokkut ak boo bu dee mbirum politique maanaam nga xam ne politique boo ci xasee nekk may na la ngay wax loo gëmul may na la ngay dige loo dul def may na la ngay fen dañu wax sax dañ koy wax bu ñu waxee ñun dañoo nekk ci campagne mooy campagne kon lu la neex wax ku la neex xas ku la neex saaga ku la neex wax lu ko neex ndax kenn yoon du la ci topp loolu nag kon mooy ak yàqute la rek loolu lépp boo seetee rek mooy dañoo wàcc yoon waaye diine moom suñu boroom moom amul fen amul fu la mën a maye ngay wor walla fu la maye ngay fen wala ngay def loo xam ne loolu amul espace boo xam ne fii sañ ko fii sañoo ko fii waaye yàqute gu am ci politique bi moo waral loolu bu ñëwee ci wàllu koom-koom loo crise yu metti moo fi am moom it daanaka damay joxe ay misaal yu gàtt rek ngir li ñuy wax ñu mën koo ñu mën cee teg loxo mooy ci mbirum koom-koom léegi moom it tricher doon dara léegi waaw nit ki daal Euh, wàllu wàllu wàllu wàllu da ngay gis bu xew jot nga gis koo xam ne day profité ci xew wi dem wuti loo xam ne lu baaxul la mu di ko jaay nit ñi loolu gis nañ ko ci màggal ñëwee nga gis koo xam ne day importé loo xam ne délai yi jeex na ay diw wala kii waxtu nekk nga dégg ñu ne jàpp nañ ci ay nit yoo xam ne dañ doon dugal nàngam ca waxtu màggal wala waxtu woo xam ne nit ñi dañ ko saxla duñ tala seet lii jeex na wala jeexul mu ñuy jaay ak loo xam ne lañ lay wax moo nekk ca biir ak la nekk ca kaw du bokk yooyu yëpp xeeti xëcc la ak ak loo xam ne yàqutuy jikko la ngir rek am am tonowu ngir tonowu noo mën a def ba tonowu rek baax na seetutoo ci dara lekk alal jàmbur jëfandikoo riba léegi riba ni mel kenn xamul nu nu mel ci dëkk bi waaw dañoo defoon ne banque rek ñooy def riba waaye ragal naa lool ne barab yi ñuy jaayee fii ay dugub ak i gerte ak yooyu dañ la cay nettali yoo ne da nga jàpp ne loolu moom ci jaahiliya la amoon waaw koo xam ne day yor alalam baykat bi ñëw soxla mu lebal ko ko waaye tegal ko ca loo xam ne yow boo ko déggee sa yaram day daw ci loolu lañoo jàppoon ne ci jaahiliya la amoon bi lislaam ñëwee far na ko waaye nga gis ñoo xam ne dañ koy def ci dëkkub Sëñ waa bi nag far muy muy muy loolu nag la lépp rek ngir wut wut wut wut alal ak muy crise bu metti àgg na ci ci wàllu koom-koom ñi nga xam ne ñooy liggéeylu ñañuy liggéey loo duñ yoon jox seeni àq waaw noo mën a def daal ba liggéeyloo nit ki bu noppee nga fexe ba nax ko loolu it lu tasaaroo la fi ne nii kiris bi am ci wàllu koom-koom bokk na ci fi mu gën a fese mooy diggante bu soree bi ñi am ak ñi ñàkk loolu moom dafa doy waar lool da ngay dégg ñu ne réew mi moom am na nga gis ñu am lu bari lool ak ñu ñàkk lool loolu ñu ñàkk ak ñu am mënut ñàkk ci àdduna yàlla bind noonu àdduna xasam na baynahum maichatahum fi l xayaati dunia waaye nag fi ñuy seet mooy ndax ëpp na ba jéggi dayoo loolu lañuy seet dañ doon wax at yee ca ginnaaw ne koom-koomu àdduna maanaam 20 pour cent ci doom ci ci nit ñi ci ci ci ci ci ñoo ñoo am ñoo yor 80 pour cent ci koom-koomu àdduna waaw nga xam day mel ni daal juróom boo xaajoon alali àdduna téeméeri xaaj juróom-ñetti fukki xaaj yi boo xaajoon nit ñi téeméeri xaaj ñaar fukki nit ñi ñoo ko yor waaye gëstu yi ñu mujj defaat gis nañ ne gën naa néew loolu waaw day mel ni daal Sénégal bu doon téeméeri milliards mooy alali Sénégal Sénégal di téeméeri nit ci misaal mu gën a jege ñaar fukki nit yi ñoo yor juróom-ñetti fukki milliards yi. juróom-ñetti fukki nit yi séddoo ñaar fukki milliards yi maanaam mooy wane ne diggante bi soree ci ñi am ak ñi booy dox moom da ngay gis ne alal ñàkku fi waaw li ngay gis ci ay immeuble yu kawee gis ci ay oto gis ndàngam waaye boo xoolee mbooloo mi ñàkk bari lool lool nag ci am réew crise la ci wàllu koom waaw ñu am ak ñu ñàkk munta munta waaye na xaw a jegee tuuti boobu maanaam ñu am ñu nekk ci digg bi bokkuñ ca ña riche bokkuñ ci ñàkk loolu nag moo bariwul maanaam ñi nekk ci digg bi moo bëriwul fi mu ne moom da bokk ci ñàkk wala nga bokk ci ñaam ci loolu nag baaxul crise la ci am ci ab am koom-koom crise la ci ab société dañoo war a fexe ba li ëpp ci askan wi moom mën a suturlawu waaw ñëpp mënuñoo nekk ay milliardaire waaye ñëpp it waruñoo nekk ay fuqara ay masakin maanaam crise boobu nga xam ne dafa dem ba ci sax dundinu diine ji da cay da cay feeñ ndax bari na diine joo xam ne ci kaw la yam maanaam nit nit ñi ñu ko ci seen xol waaw maanaam la ngay def la ci ëpp ngis sal lay doon loolu crise la waaw bu fekkee ne ñi bari ñuy def la ñuy def ci kaw lay nekk waaye nekkul ci biir nga xam ne nit ki lekk léeg bu defee lu baax bu ko kenn waxul mu mer wala bu ëllëgee buñ ñu ko laajee ju joxe loola ak li ma yàlla baal li ñuy tudde ni faax lay doon kii def yàlla la war a jiital ci def booy jaamu yàlla yàlla nga war a jiital ci jaamu yàlla gi moo tax da nga cay dëggu waaye nifaaq bu amee ci jaamu yàlla loolu crise la boo xam ne day am ci diine waaw waaye crise bi am ci diine ji nag da ci am loo xam ne lu doy waar la mooy bëgg néewal doole giñ bëgg a néewal doole diine ba noppi di ko jaare ci yàq deru niti diine yi ak fexe ba nit ñi dootuñu leen wekk dootuñu leen doyloo loolu ñii nooni diine yi dañ ciy liggéey liggéey boo xam ne yaatu na lool te ñu bari ci julli ji nag dañuy bi ci kàmb googu ñu leen di gasal waaw ndax diine moom waxtu wu nekk bu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ay nit ñoo koy jëmmal di ci jiite ay nit waaye bu ñu demee ba bëgg ne kilifa diine amatul léeg-léeg nga dégg ci rajo ne kilifa diine man gawma ko kilifa diine gawma ko diine ji amul kilifa yàlla bu soxla wutoon ay kilifa du yabal ay yonent day wàcc téere yi rek yàlla mën daa wàcce téere yi rek wala mu yekkiwal nit ñi lim leen di jàngal yàlla ay pexeem waaye dafa bëgg yonent bi ci da ko wutaloon ay kilifa da ko fabi hudee fu muqtadee ba mu ko limal ko ay yonent ne ko roy leen wax saxaaba yi ne leen yonent bi mooy seen royukaay roy leen ko saxaaba yi yonent bi wax nañu ne sama saxaaba yi ñooy seeni royukaay ashaabi kan nujum fa bi ayihim iqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi dañoo mel ni biddiw ku ngeen ci topp dangeen ngeen jub kon loolu mooy wane ne kilifa mënut a ñàkk kilifa mënut a ñàkk nit ñi mënuñoo ñàkk kilifa yu leen di yu ñuy dellu ñu leen di teg ci yoon di leen digal di leen tere waaye suñ demee ba kilifa amatul mooy nit ñi kenn ku nekk fu leen neex jëm bu boobaa ñi bëgg a téye nit ñi dañ leen di jéem a taqaleeg seeni kilifa yi diine loolu nag crise la boo xam ne bàyyi xel na fi mu ne nii ndax da dafa tàmbulee ami jeexit ndax ñi koy def dañoo am ak xerañte guñ koy defee ba nit ñi duñ ko bàyyi xel damay wax ne bu ngeen seetloo jamono yii fi mu ne nii amul benn théâtre boo xam ne amul ku cay jëmmal kilifa diine waaw théâtre yi bu nekk ab sëriñam ca biir fi ne léegi loolu bu njëkkoon ab sëriñu tariyaax dong lañ daan wane ci biir teyaatar yi waaye léegi dañuy gis koo xam ne day jëmmal sëriñu ab ab sëriñ ñii ñu xamee sëriñ rek kon loolu mi ngi am mooy ñu ñuy wane bëgg a def ci yi nit ñi mooy daanaka kilifa gu mat kilifa amul waaw ca loolu dañuy bëgg a généraliser nag dañuy jël ay misaal yoo xam ne am na dañuy jël benn walla ñaar gis seeni doxalin ñu bëgg koo généraliser yi ñëpp ngir rek ñoom xam nañ ko waaye dañoo bëgg nit ñi seen xel kilifa diine wayaf ci loolu nag ay pexe yu jan la yoo xam ne ñu ngi koy def di ko jaare ci film yi di ko jaarale ci théâtre yi di ko jaarale ci média bi ci boppam nga xam ne tey luñ déggoon ne ku yor turu kilifa diine def na ko dañ koy siiwal wane ko anam goo xam ne nit ñi seen dënn day rëcc ndax dañoo xam ci wàllu psychologie dara boo ko déggee sa dënn rëcc nga déggaat ko sa dënn rëcc bu yàggee da dënn bi dootu rëcc waaw boo ko yàggee dégg sa dënn da ngay dem ba jàpp ne lii kat loolu moom lu ja maanaam am na daal waaw dañuy wax ne am nañ technique boo xam ne mën nañuy def ci sa bopp di la wax dara la wax ba nga gëm ko te loolu du dëgg loolu nag dañ koy def fi mu ne nii loolu yëpp ci wàllu diine ji ñu ci bàyyiwul xel dana indi crise bu mag a mag a mag a mag ci diggante ñi nga xam ne ñoom lañu war a roy ak ñi leen di roy ndax ñiy dox ci diggante bi bëgg fexe ba kóoliteef gi amoon seen diggante dañ loolu nag lu lu mat a bàyyi xel la ci crise bi nga xam ne euh, moo am waaye gis nañ ko ci wàllu ñi mbubboo diine yi ay ay ay ay ay maanaam nuñ fexe ba am alal loolu it bari rawatina ñi nga xam ne dañuy wax dañuy ay ñaankat lañu yooyu di ndax nit ñi loolu dafa bari am na nag ñoo xam ne lañuy def am na fuñ ko teg waaye da cee bari ñoo xam ne xam nañ fi nit ñi toll ba xam nañ nañuy def ba dox ci seen xel yi ba jël seeni alal loolu it lu baree bari la ci loolu lépp li ci metti mooy dañ koy def ci mbubum diine ca loolu diine yoonam nekku ci bu ñëwee ci diggante réew yi it nga gis léegi fi ñu toll ci wàllu crise mooy guerre yu bari yi ak ëpp ëpplante doole bi loolu it bari lool daanaka loi moom fi mu nii maanaam day mel ne ki am doole rek moom moo moom loi waaye ñi néew doole amatuñ loi kuy gis lii xew tey fi mu ne nii ci geeru Palestine bi ak Israël dangay xam ne loi moom daanaka réew yi tegatuñ ko fenn waaw saña tiim ak ay population di leen bombarder ay gone gaw leen kenn amul fuñ jaar ba noppi àdduna bépp di seetaan loolu ak lay xew Russie ak Ukraine yooyu mooy wane ne ci diggante réew yi it bari na ay crise yoo xam ne lu yaatu la loo xam ne mënees na wax lu yaatu waaye xam naa rek kon bu ñu wanee ne crise am na ci nit ñi waaye crise am na ci famille yi am na ci politique bi am na ci économie bi kon crise bi yaatu liñ ci wax it ay misaal la yoo xam ne boo ci jëloon rek mën nañ caa wax lu yaatoo yaatoo yaatu waaye dañ doon laltaay wane ne crise bi moom am na waaye crise boobu nag du doy rek nga ne lii mooy crise bi waaye crise bi fu mu jógee kiris ah, crise bi fu mu jógee xëy na duñ ne lii moo ko sabab waaye mën nañoo wax ne lii moo ko yombal wala moo tax mu muy gën a tasaaroo te loolu dañ ciy tudd ñetti mbir ñetti mbir yoo xam ne dafa tasaaroo ci àdduna bi léegi jur nag mën a jur wala boog mu jur crise bi ma wax wala mu man koo man koo jur ndax xam ngeen ne nit ñi seeni doxalin ni ñuy doxe di ko comporté woo seeni xalaat moo koy lal nit ki ni muy xalaate moo koy jëmale ci mu am nu muy doxale waaw maanaam diggante xalaat ak doxalin dafa jàppaloo waaw damay wax ne bari na luñ bëgg a soppi lu ca duñ ko mën a soppi ndax dañoo soppiwut gis-gis nit ñi ca loola maanaam nit ñi bala ñoo soppiku ci dara day fekk seen xalaat ca loola soppiku waaw damay faral di wax ne li tax lu mel ne yi ñuy gis ci suñu société bi yu mel ne ay yebbeeg yooyu nga xam ne dañ koo tere tere tere tere waaye lu tax duñ ko bàyyi mais yow fii ak gëmloo nit ñi maanaam nit ñi ngi gëm ne lii dafa baax lii teraanga la bis bii rek nga am gëm-gëm boobu fii mi ngi nekk mënoo koo tere waaye boo leen gëmloo woon ne yàq la amul njariñ bañ gëm ko dañ koy bàyyi ci saa si maanaam mooy gis-gis bi ngay am ci dara ak doxalin wa ngay am dañuy la dañuy dañuy dañuy jàppaloo moo tax nag ñu war a xool gis-gis yi tasaaroo ci àdduna mooy philosophie yi am ci àdduna ba tax crise yi mën a baree nii muy baree doxaleen yi jikko yi mën a yàqoo nii muy yàqoo loola dafa am ñetti yu fës lool ci ay philosophie yu am ci àdduna bi mu ne ay gisiin yu am ci àdduna bi yoo xam ne dafa commencé law ca tubaab ya la tasaaroo waaye dafa juddoo ca tubaab ya tasaaroo ko waaye commencé law ba ci suñu réew yi ba ca njëkk mooy matérialisme bi ma doon wax maanaam jàpp ne madda muy matériel muy loo ma am am yi nga mën a teg loxo loolu mooy dëgg waaw diine yi dañ lay wan ne ëllëg lu baax tuyaaba mooy li nit ki war a bàyyi xel dunduk àdduna gi dañ fay jaar waaye dund gi ñëw ëllëg mooy gi nit ki war a waajal wërta jaay sa ëllëg ngir sa tey waaye ñi gëm na ne tey rek am fi nekk tey rek a am ñooñu kon yow mënu leen a bokk aw doxaliin waaw lépp loo mënta làmb daj ko mënoo koo xool gis ko loola amut waaw nga xam ne bu boobaa nit ki lii li fi ñu koy natte fi koy natte moom ci boppam mooy ay am amam ak i man-manam waaye ay jikkoom ak ay pas-panam ak yooyu ñoom yitteelu leen loolu nag moom la wax matérialisme boo xam ne dafa tasaaroo ci ci àdduna bi loolu fu mu am rek mën naa jur yu baree bari yi ma doon wax ci ci ci ci ci ci ay jikko yu yàqoo ci ay doxalin yu jaaduwut ndax ñooñu matière lañ gëm am am lañ gëm li la loolu mooy tax seeni doxalin mel noonu waaye ñaareel ba mooy individualisme bi ñuy wax maanaam mooy nit ñi dem ba nit ki boppam léegi moom la jiital ci mbooloo mi waaw àgg nañ sax ci sa bopp moom nga jiital ci famille bi nga bokk ca loolu boo ko dee seet dafa ay dafay bëgg a yegg si day mel ni bu njëkkoon sa sa sa sa sa sa sa sa famille wala sa sa say say bokk ñoo la daan wutal soxna nga xam ne ñoom ñooy seet li baax ci askan wi jàpp ni kii baax na ci kër gi ñu ñu jàpp ne yéen ñaar kon war ngeen mën a ànd mais léegi bu fekkee ne yow sa bopp ngay xool sa intere bopp ngay xool sa loolu yow doo ca at d' accord da nga naan naa naa gis ba ku ma mën a àndal mu jaral la nga génn ànd jeeg moom dëkki feneen. kon moom da jiital sa bopp bàyyeetoo xel sa famille bi sa famille amatuñ droit ci yow léegi da ngay gis dañuy jàmbat naan léegi sëy yii mënatut a dox ndax waajur yi dañ cee dañ ciy dugg waaw waajur yi bu njëkkoon ñoom seen seen mbir la dañ ca dañ cee am àq dañ cee am wàll mais léegi dañuy dem ba individualisme tax na dañ naan amatuñ ci wàll ñoom waaw léegi naan ñoom seen wàll jeex na ñi nga dëkkal amatuñ wàll eh, sa intere bopp ngay xool moo tax loolu yi day yàq diggante dëkkandoo yow boo fekkee ne man damaa nekk sama kër li ma neex sama kër dëppoo sama intérêt moom laay def sédduma ci ab jàmbur sédduma ki ma dëkkal sédduma keneen te loolu ku ne xam na ne dëppoo wut ak diine diine li lim la jàngal mooy bàyyil xel sa bopp waaye bàyyil xel mbooloo mi nga nekk dem nañu sax ba boo bëggoon a tabax am tiim kenn bu ko naree lor loola war nga ko caa tàggu ba noppi mais léegi yooyu yu bare bari bàyyeetuñ ko xel kon ngir wax ne rek individualisme boobu nga xam ne dañ ne nit ki li ko amal solo mooy moom intérêt boppam ak gis-gisu boppam ak bëgg-bëggu boppam ndax tubaab bi dañuy dem bay àgg ci ne amut yàlla ju la war a wax fi ngay jaar wala kilifa gu la wax fi ngay jaar nit ku nekk dafa war a xool lan mooy bëgg-bëggam loolu am na ku ko wax wax ju yoo xam ne wax ju siiw la ni jë ni maître chaque n'obéit qu'à sa qu'à sa propre volonté loolu am na seen benn philosophe bu bokk ci ñooñu moo waxoon loolu mooy amul yàlla amul kilifa kenn ku nekk daal bëgg-bëggam ak lam bëgg a def rek loolu la war a topp loolu nag ku ne xam na ne fu mu tasaaroo ak yàqu na fa bari ndax kenn ku nekk la la bakkanam la ko bakkanam te ku ne xam na ne léeg-léeg nit ki la muy jàpp ne volonté la bakkanam moo ko cay sóob loolu day àgg ci ne nit ñi léegi luñ bëgg maanaam individu yi liñ bëgg dañ leen cay fekk si am na ñu dem ba àgg ci yenn réew yoo xam ne mbirum drogue léegi dañ koy légaliser mayuñu ko ko mayuñu mayuñu maanaam nit ku ci commerce ci wut xaalis waaye danañ am ay pharmacie wala yoo xam ne yow ki bëgg a wu moom am na ci sañ-sañ moom dañ ko bàyyi mu dem drogué waaye ndax dañuy bañ ki koy jaay dugal ci ñi ko bëgg ak ñi ko bëggul waaye ñu ne ginnaaw nit ki bu ko bëggee sañ naa dem ñu wutal ko ay barab wutal ko ay kii loolu lépp ngir wane ne dañuy topp nit ci seen i bëgg-bëgg ba mu ëpp léegi loolu moo leen jural bu ñaari góor ne dañoo bëgg a ànd ñu ne leen am ngeen ci sañ-sañ ñaari jigéen ñi dañoo bëgg ànd léegi sax dem nañ ba yoonal ko loolu dégg ngeen coow lu bari eh, ñuy bañ mu agsi fii waaye damay wax ne am na ci yoo xam ne agsee gu fi dëgg-dëgg waaye xet gi mi nga nuy xeeñ waaw maanaam individualisme bopp sa bopp gi léegi moom wax dëgg yàlla mu ngi commencé dugg ci suñu suñu biir waaw kenn ku nekk jiital sa bopp jiital sa intérêt bopp sa bëgg-bëggu bopp loolu crise la bu nekk boo xam ne la muy jur mooy yàqu-yàqu yu bari ak crise yu bari looloo koy jur ba ca ñetteel bi mooy loo xam ne moom dañuy wax ne ci américain yi fa lañ ko fa la fa la fa génne mooy pragmatisme mooy daal nit ki moom li am njariñ ca teew léegi rek mooy dëgg waaw lépp lu teewul amul njariñ maanaam mbir mu nekk dañ koy natte ak baaxam ca njariñ lam la amal waaw njariñ lim la amal lu teew loolu nga xam ne kon ku nekk kon lam la muy topp rek mooy la ko amal njariñ kon yooyu boo ko xoolee muy ñetti gis yoo xam ne benn bu ci nekk nag lu yaatu la dama koo tënk ci abaat yu néew loolu mooy li lal yàqute gi nga xam ne am na ci àdduna ndax yàqu la yàqu tegu la koo xam ne ci xel yi la nekk ci xalaat yi la nekk ñi di ko dund muy jeexital ci doxalin yi di jeexital ci jëf yi loolu nag bu fi agsee moo tax xalaati tubaab bi bu fi agsee rek doxalinu tubaab saa bu xalaati tubaab accès doxalin tubaab accès ndax xalaat ak doxalin ñooy ànd waaw boo xoolee damay faral di wax ne léeg-léeg ñun même ñuy dëkkee dañuy xool ab architecte boo xam ne tubaab France la jàngee architecture ñu ñëw ñu ne ko defaral ma fu mu dëkk fu ma fu ma dëkk moom moo lay rëddal lam jàng la lay rëddal loolu dëpp wut ak ñun ñu baaxoo dëkkee ci misaal mu rëddal la ne yow ñaata na nga am nga ne ko benn mu ne la kon yow benn chambre parent ngay am ak ak ak néeg bu xale yi nekk ak xëy na boo amee gan am na ñoo xam ne am gan ak fooy denc nga nga nga dëkkee noona loolu dëppoo ak suñu réalité nga jekki-jekki am lu mat ñetti fami yu war a ñëw dolli si ci sa kër ndax société bi moo ko laaj ah yi may wax ni xam nañ ko bu baax baax da ngay tabax tabax boo xam ne yow yaa pour sa bopp la ni suuti am ñaari famille yu ci war a dolli ko si waaw si loo ci mën dara sa doom demoon na fenn doon fa sëy am na fa ñetti doom tàggoo naa kooku war ñu bis ci kër ah sa mag ma nga woon feneen di fa sëy yàlla dogal la ca la ca dogal mu ñëw war a dëkk si ci kër gi loo ci man léegi mooy indi mooy indi jafe-jafe yi defee soxna yi ci kër gi wan gëmoon na ñoom ñoom dong ñoo fi war a dëkk ñu mën a yaatal ñële ci loolu lépp fa mu jóge mooy ni ñu la dëkk ni ni ñu la rëddal rek nga dëkkee noonu te da am man man mënoon ngaa am kër gu yaatu suuf su yaatu nga am kër gu yaatu waaye doo ko def loolu yëpp mooy gisiin wi nga xam ne mooy lal suñu suñu suñu suñu suñu suñu doxaliin gisiin yooyu dafay tënk suñu doxalin loolu yëpp nag dafay am ay crise yu muy yu muy yu muy yu muy indi xëy na nag loolu lu yaatu lu ma ne sa cee wax lu yaatu waaye kon ñu ñëw ci yan gànnaay la jullit bi war a am fu jamono ju tollooy fii waaw ndax fii mooy as li ñu li ñu laaj mooy aslihatul muslim fi muwajahati hazil azamat mooy yan gànnaay la jullit bi war a gànnaayoo pour jàmmaarloo crise yu mel nii loolu kon dañuy xool ay mbir yoo xam ne euh, moom la jullit bi war a gànnaayoo loolu nag laaj la bu yàgg a yitteel boroom xam-xam yi ak yarkat yeeg jàngalekat yeeg yooyu maanaam mooy ndax jamono ji mus sa tàggoog ay crise moom ay jafe-jafe mus sa tàggoog jamono moo tax jamono ju nekk nit ñi boroom xam-xam yi ñi ngi gëstu yan yoon la jullit yi war a jaar pour jàmmarloo crise yi nga xam ne moom lañuy ñuy dund rawatina bi ñu demee ba nga xam ne sax jullit yi ñoom dong dundatuñ waaye dañ leen a coloniser tubaab yi dugg ci seen biir soppi seeni loi ba jullit yi daanaka ci bari xamatuñ seen bopp bari na ay mouvement ci biir jullit yuy juddu ngir war a wax nit ñi naka la ñuy def nag ba crise yi nga xam ne ñëw na naka la ñuy def ba jàmmarloo moom nga gis ñoo xam ne nit yi tasawuf yi am nañ lu ñuy gise crise bi ak lu ñu ko war a jàmmaarloo moom ñi ñuy tuddee salafiste yi am nañ nu ñu gisee crise bi ak nu ñu wax ne noonu la ñu war a jàmmaarloo crise bi ñi nga xam ne ñoom euh, ay yoon lañ leen di tuddee ay réformateur nga xam ne ñetti kuréel daal ci lislaam yu fés yoo xam ne bu ñu xoolee am nañ ay boroom xam-xam am nañ ay bindkat bind nañ ay téere ci crise bi nga xam ne moom la monde islamique bi doon dund ak naka la julli yi man def ba gën ci ba génn ci ñi nga xam ne ñoom ay ay nit yi tasawuf lañ ñoom dañoo jàpp ne crise bi la ciy génn nit ki mooy moom mu defar boppam ni ngay mën a jàmmaarloo crise bi ngay dund mooy defar sa ruux defar sa bakkan yar sa bakkan not sa bakkan ñoom ah, wàll googu mooy bunt bi ñu xàll ngir yar nit ñi ngir fu jamono toll ñu mën a dund ca jamono ja mën a sàmm seen diine mën a sàmm seen ngor mën a dund dund gu tey gi yàlla bëgg ci ñoom loolu ñoom am na bunt boo xam ne bunt boobu la ñu ubbi ñoom bu defar sa xol defal sa ruux moom la ñuy tuddee waa ahlu tasawuf mais am ñoo xam ne nag dañ ne mbir mi yépp ci pas-pas la dellu mooy ñi nga xam ne dañ ne daal jullit yi seen pas-pas war a defaraat ah, ñooñu mooy madrasa salafiya bi parce que lépp dañu koo delloo ci pas-pas bokkaale geeg nanga ma ñoom ay biddaag côté boobu lañ jàpp ne bu ñu xeexee loolu euh, jafe-jafe dootu am ñi nga xam ne nag ay islaahiyuun lañ mel ay Jamaaluddin Afghani yi ak euh, Mohamed Abdou ñoom dañ ne mbir mi kat kenn mënut a jàmmaarloo moom yow dong crise yi nii mu mel waaye ab système la comme système bi lañ war a soppi xam bu doon léegi comme li ñuy wax léegi système système ñoom dañ ne woon jullit yi lii ñuy dund ci ay crise fokk ñu jël nguur yi fi nekk jële leen fi indi fi yeneen nguur yi lislaam ngir ñu mën a soppi ngir nit ñi mën a dund mën a génn ci crise bi loolu mooy ñi nga xam ne mooy al ixwaanul muslimin ci ci Égypte mooy ñi nga xam ne rek al ñi tudde al islaamu siyaasi yi nga xam ne dañoo jàpp ne lislaam dañ cee war a dañ maanaam politique la boo xam ne dafa war a remplacer politique bi buur yi yoroon ak politique bi nga xam ne moom la fi colonialiste yi indi kon muy ñetti école yoo xam ne ku nekk am na loo bunt boo gis ne fa nga war a jaar ngir waajal jullit bi ngir mu mën a jàmmarloog crise yi ba mën a jëflante moom ba crise yi du ko dominer waaye ñun bu ñu bëggee jël dellu ci njàngale mi nga xam ne moom la ñu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu jàngal dañuy gis ne am na ay ponk yoo xam ne teg na ko yoo xam ne jàngal nañ ko woo nañu ci ca xam nañ ne buñ ci jëfandikoo buñ ci buñ ci jafanoo ku ci jafandu da nga mën a mucc ci crise yi ba ca njëkk mooy gëm yàlla wéetal ko gëm yàlla wéetal ko ndax sëñ Tuubaa nee woon na murit bi la mu war a jiital mooy tawxiid pas-pas awalu waajibin alal muridi tahsiilu zaadihi min a tawxiidi ndax pas-pas kat bu laluwut bu dëgërut lu ñëw mën laa yóbbaale waaye fu sa pas-pas dëgëree waxtu wu nekk yaa ngay xool lan la sa boroom bëgg ci yow yaa ngay xool lii may def ndax lu may luy gërëmloo sama boroom la walla lu ko gërëmloowut kon kuy bàyyi xel boroomam loolu ngànnaay li jiitu ci crise yi mooy gëm yàlla di ko bàyyi xel ndax ki nga xam ne pas-pasam dëgërul mooy bu beneen gisiin ñëwee mu bàyyi lam jàppoon fekk si ko bari na jullit yoo xam ne tey léegi seen dund gi dundu tubaab la mooy seen pas-pas ci yàlla dëgërul ndax bu sa pas-pas dëgëree sa dund da koy natt ci li yàlla jàngal sa dund da koy natt ci bëgg-bëggu suñ boroom nga xam ne bëgg-bëggu suñ boroom moom ngay jiital ci sa bëgg-bëggu bopp moo tax suñu ah, suñu boroom waxoon nañu ne ku di taaxut gëm yàlla kooka moo jëfandikoo moo moo jàpp ci buum gu buum gu dëgër gi ma man yakfur bi taaxuti wa yuminu billahi faqad istamsaka bil urwati l wusqa te sécurité dëgg-dëgg dëgg li koy maye mooy mucc ci crise yi ba am dund gu dal gund gu teey li koy maye mooy gëm yàlla loolu it alxuraan jàngal nañu ko ne alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika am amnu wa hum muhtadun kon bu njëkk boobu mooy gëm yàlla faw jullit bi di yeesal pas-pasam di dëgëral ak gëm yàllaam gëm yàlla nag ni ñu ko Sëriñ Tuubaa jàngale du looy wax rek du looy wax rek maanaam dañuy wax ne gëm yàlla wax ko moo gën a yomb melowoo ko waaye melowoo ko nag moom lañ soxla gëm yàlla boo ko defee melokaan yi wax ci suñu borom da koy gëm ndax suñu borom buñ nee la aji dégg la aji gis la ku am kàttan la ku amul nammeel la melokaan yooyu ñu ngi koy jàng ci téere yi waaye Sëñ Tuubaa day wax ne boo gëmee ne yàlla mi ngi dégg gëm bu dëggoo foo mën a nekk doo wax loo warta wax doo wax lu araam ndax da gëm nga ne yàlla mi ngi dégg waaye gëm naa ne yàlla mi ngi may dégg te du la tee jëw du la tee xas nit du la tee wax lu bon kooku day mel ne gëm nga da nga ko wax noonu rek waaye dëgg-dëgg dese naa sax ci sa xol boo gëmee ne basirun la yàlla mi ngi gis ci melokaanam yi la bokk bu dëggoo dëgg dëgg dëgg foo mën a nekk yaa ngi bàyyi xel ne sama borom mi ngi may gis looy def yaa ngi bàyyi xel ne sama borom mi ngi koy gis kon bu boobaa foo mën a nekk da nga bàyyi xel su borom kon bu ñu wax pas-pas du ne rek gëm naa yàlla am na gëm naa yàlla moo bind asamaan ak suuf ndax loolu moom kenn du ñëw ne la maa bind asamaan ak suuf waaye gëm naa yàlla gëm naa ne mi ngi may dégg gëm naa ne mi ngi may gis gëm naa ne mi ngi xam lépp lu may xalaat sax loolu boo ko dee bàyyi xel waxtu wu nekk da nga sàmm sa bopp kon pas-pas boobu mooy aar nit ki mooy aar nit ki maanaam bokk na ci liy gën a aar nit ki mooy gëm yàlla googu ndax gëm yàlla googu it da cay bokk nga gëm ne àllaaxira am na nga gëm ne yàlla bind na sawara bind na àjjana te ne noonu dëgg-dëgg suñu gëm sawar ak su gëm àjjana xaw naa des tuuti ndax boo gëmoon sawara dëgg-dëgg lépp ñu ne la dalay yóbbu a doo ko jege waaye day gis ko ne gëm na sawara waaye bis bu set mu def xam ne nee nañ ko lii dalay yóbbu sawara bu continuer ko def gëm naa àjjana ku ko def dëgg lépp luñ ne la dalay may àjjana feeg yaa ngi koy man doo ca doo doo ko wàcc danga nga ca nekk waaye léeg gëm gi nag xam nañ ne gëm day yokk ak a wàññeeku duñ ne nit ki gëmul waaye gëmoom day woyof léeg-léeg al imaanu yazidu wa yanqus gëm day dëgër ak wàññeeku ndax gëm googu dafay jeexital ci ay jikko moo tax suñu borom di wax ne ku gëm yàlla gëm yonent bi na nay wax dëgg wala nay wax lu baax wala mu kon gëm gi dafay ànd ak ngay wax lu baax ku gëm yàlla gëm bis penc nay teral nay nay nay nay teral dëkkan nay teral euh, ganam ak yu mel noonu ku gëm yàlla gëm yonent bi di wax yu baree bari yam cay teg yu ci bari ay jikko la ak loo xam ne gëm yàlla gi moo koy jeexital ci say cër moo koy jeexital ci saw nekkin ñaareel bi nga xam ne gànnaay la ci nit ki mu mën a jàmmaarloog kiris yi ginnaaw bu gëmee yàlla muy def lu baax jëm a def lu baax def lu baax nag mooy mooy mooy jëmmal ak gëm ndax dañuy wax al maa waqara fi l qalbi wa saddaqahu al amal gëm yàlla ci xool lay nekk waaye jëf moo koy dëggal waaw ndax kenn mënta xool nit rek ne kii ku gëm yàlla la waaye nag ci ay jëfam lañuy ñuy mën a xamee gëm na yàlla wala gëmul yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi doon wax ne ku ngeen gis waa ju ngeen gis mu fonk jàkka ja seedeel leen ko gëm yàlla mooy mandargam gëm gëm yàlla nit ki fonk jàkka ja fa dem xamuñu ko gëm gëm na gëmul waaye am na jëf yoo xam ne boo koy def dañuy xam ne gëm na ki nga xam ne day teral ay dëkkandoom day teral gan dañuy xam ne kii kat gëm na yàlla ndax yàlla na ko mu di ko def waaye gëm yàlla gi moom ci xol lay nekk kenn mënu koo gis kon jëf lu baax di ca góor góorgóorlu dafay ànd ak gëm yàlla ndax saabu yàlla tuddee gëm yàlla da cay teg jëf lu baax wal asri inna al la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihaati wa tawasaw bilxaqi wa tawaasaw bi sabri amanu wa amilu saalihaat gëm rek doyut waaye da gëm di def lu baax ndax def lu baax googu nag buñ ko waxee dafa yaatu dafa yaatu julli yi ci la bokk koor yi ci la bokk waaye liggéey ba am lu lew di ci dimbali sa bopp di ci dimbale ñeneen ci la bokk dimbalente ci la bokk loolu lépp ci la bokk te xam ngeen ne dimbalente lii ñuy tudde ma tey crise économie yi ñuy dund ak crise yu baree bari bu ñu ko bu ci jë buñ ñu ko dund buñ ko dundee dëgg ni ñu ko suñ ci jàngale mën na fay jëlee crise yu bare bari boo xooleen tey li nga xam ne murid yi ñi ngi koy def jaarale ko ci ma ni mu wàññee coono yi nga xam ne mënoon nañ caa man mënoon naa gën a metti bu loolu amutoon mënoon naa gën a metti lool bu loolu amutoon kon xidma boobu ak jëf yu baax yooyu ak dimbalante googu fokk nit ñi boole ko ci seen jàpp na ci seen gëm yàlla la bokk loola dina tax crise yi nga xam ne moo am crise yooyu mën a wàññiku moo taxoon def lu baax baax na waaye di baaxal loolu def baax di yéwénal di yéwénal faw mu am ñoo xam ne dañuy defare dañuy defare loolu moo taxoon sëriñ bi ne wal tudxili musliha fii yadi wa fii daari wa sabbitanhu bilhaadil wa fii ñetteel ba ci nga xam ne nag moom la jullit bi wala gànnaayoo ginnaaw bu gëmee yàlla di def lu baax mu boole ci nag defar bakkanam yar bakkanam sellal xolam ndax bari na jëf yoo xam ne la koy yàq ci xolum nit ki la nekk ndax lu mel ne ngistal ci xol lay nekk te day yàq jëf iñaan ci xol lay nekk te day yàq jëf rëy ci xol lay nekk te day yàq jëf yooyu kon ay melokaan la yoo xam ne nit ki dafa war a yar bakkanam boo yaree sa bakkan moo tax yàqu yi jamono doo ci mën a dugg ndax bëgg alal bëgg àdduna moo taxoon mutasawifa yi doon wax ne xubbu dunia rasu kulli xatia maanaam bëgg àdduna mooy boppi musiba yépp mooy ndayi musiba yépp bari na luy xew loo xam ne bëgg àdduna moo ñu ci dugal bëgg àdduna moom li ñuy lim ñuy mi ngi ñuy lor lool lool kon nag bokk na ci lii nit wàññi crise yi nit ki war koo gànnaayoo mooy bañ a bëgg àdduna fi ne boo bëggul àdduna yu baree bari du la mën a yóbbaale waaw doo jaay sa ngor boo bëggul àdduna kenn du la mën a dugal ci ay tappale ndax bari na tappale yoo xam ne nit ki bëgg àdduna donc bëgg loo am bëgg fu ñu teg la ca kaw ba dana tax nit ki di wane lu nekkul ci moom wala mu wax lu dëgg waaye ki bëggul àdduna àdduna jëlelu ko dara kooku ku naqaree yàq lay doon ku naqaree soppi lay doon ndax àdduna ci lañ lay mën a jaar di la di la di la di la xoymat ay mbir ba mën la wàcciloo sa bàyyiloo li nga war a ni nga war a mel ak fi nga war a nga war a nekk kon ci bu ñàkk bëgg àdduna mooy indi ak doylu ci yooyu yëpp ku ko def rek yàqu-yàqu yu jamono mën nga cee mën nga cee mën nga cee mucc moo taxoon nit yàlla yi foofu lañu nekkoon Sëñ Tuubaa li ñu jiitaloon mooy defar roo yi nit ñi defar seen xol defar seen bakkan ba seen bakkan du leen jiital moo tax ñoom dañu jàpp ne noon yi nga xam ne ñooy noonu yi gàllankoor nit bakkan ak seytaane ak bànneex ak àdduna yooyu yooyu mooy yi gàllankoor nit ki yooyu it suñu crise yépp looloo ko yooyoo koy yombal waaye soo notee sa bakkan fexe ba të seytaane fexe ba àdduna jëkkuwu la kooku mën ngaa mucc ci lu bare bare loolu ngànnaay loo xam ne kenn ku nekk war nay xool bakkanam ndax bakkan moom ci suñ suñ tuwaa dafay wax ne sa bànneex ki ki ki ki ki ki taxe dëgg mooy koo xam ne bànneexam a koy maanaam xelam moo koy wombat mais bànneexam du ko wombat waaw tuuba tuuba li man yaquudu hijaahu ki nga xam ne xelam moo koy wommat waaye du du du bànneexam kon yar sa bakkan sellal sag ruux loolu ci yi nga xam ne yu nit ci war a gànnaayoo la te ba ca topp mooy nag ak xam nit ki dee ma ràññee ndax nit ki boo gëmee yàlla di jéem a góorlu te amoo ràññee it man ngaa sànq sa dund ci loo xam ne am na lu ko ëpp njariñ moo tax ràññee baax lool pës maanaam maanaam kuy ku maanaam booy am pës séef na fekk nga nekk ci yoon wi waaye fi ne ki nekk ci ñàll wi am pëseef loolu di waaxu day gën a sànku rek kon fexe ba ne fi ngay teg sa tànk ne fi nga jëm xam moo taxoon sëriñ bi sonn lool ci ñim àndal ñu xam dëgg dëgg dëgg dëgg boo demee ci masaliku jinaan téere yu baree dafa woo nit ñi ci ñu jéem a ñu jéem a xam digal nit ñi nañ jéem a xam fa saarihoo lil ilmi ajmaina li wëcci sil jalaali xaasidina nit ñi nañuy sàkkoo xam xam nag nit ki mag na muy def ba xam bu ko ñoree yomb na lool dañuy jàpp rek feeg jëloo ab téere ñëw tëralu xamagoo déedéet nit moo tax sëñ Tuubaa wan nañu ay yoon yu bari ci nit ki li am solo mooy mu xam te jub nam mu xamee xam gi moo am solo waaye na du nam mu xamee moo tax mag ñi nga xam ne dañ daan ñëw ci ñoom ca xamuñu daa daaw leen tëral ay téere ma di leen daan tombal xam-xam bi da gis benn tomb boo xam ne ab téere la tënk moo taxoon da gis mag ñi sëñ bi yaroon ña ca jàng ak ña ca jàngutoon li ñuy tudde njàngum léegi mënoo leen a xàmmee ci seen doxalin maanaam boo leen xàmmee boo fekkee ñu ñu àndee ak ñoom yenn 24 heures mënoo xam kiyee jàng kiyee jàngu ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy ndax dañuy xam li ñu war a def donte tëral lu ko waaye Sëñ Tuubaa fexe na ba créer anam goo xam ne ku ànd ak moom kuñ yar da nga xam li nga war a def danga xam li nga war a mel da nga xam li nga war a doxale loolu nag dañ koo war a bàyyi xel nit ki na fexe ba góor góorlu xam ndax boo xamul mën nañ laa sànq waaw bari na ñoo xam ne da leen di yërëm sax ndax dañuy am pas-pas gis bu set ñu dugg ci dara boo leen gisee weer gisaat leen génn nañ ca loola na nga ca leneen leneenaan di wër rek loolu nag fexe ba xam dana musal nit ki ci mu xàmmee lu koy jariñ ak lu koy lor du topp li mbooloo mi def yonent bi sallallahu alayhi doon na wax ne nit ki na mooy ab jullit na moytu nekk immaa mooy al toppe bu nit ñi defee lu baax ma def lu baax bu nit ñi defee safaan ma def safaan waaye da ngay xam dëgg sax ca waaye nit ki daa war a jéem a xamal boppam lan muy dëgg góor góorgóorlu ca nekk ca waaye lu nit ñi def nga ànd ak mbooloo ma léeg-léeg mbooloo mi mën nañu nekk ci loo xam ne loolu du fulla du fayda ni ko Sëñ Tuubaa doon jàngale ginnaaw xam googu dafa am loo xam ne it ci ngànnaay yi jullit yi war a bàyyi xel la mooy am kilifa am kilifa lu am solo la ndax barab foo dem ba amatuñu kilifa rek ak jaxasoo fa nekk jamono ji fii ñu toll réewi jullit yi fa ñàkk kilifa boo fa demee tey doo leen ñee foo xam ne kenn ku nekk sa kilifa bopp nga foofa ci jaxasoo la dëkk foofa kenn ku nekk mën naa ñëw dugal leen ci lu ko neex ndax amuñu kilifa moo taxoon sëñ bi di wax ne képp koo xam ne am ñàkk na kilifa bu koy teg ciw yoon seytaane mooy doon kilifa fa kullu man adima cheikhan mursida fa cheikhuhu seytaanu haysu qasada foo mën a jëm seytaane mooy moo la yëg moo tax am kilifa sëñ bay la lam ko waxoon am kilifaay li am solo kon am kilifa ci li ñu wat a bàyyi xel kenn ku nekk na góor-góorlu ba am kilifa góor-góorlu ba am kilifa ndax da nga toll jamono joo xam ne boo amul kilifa da da nga dem ba sam xel jaxasoo danga dem ba sa xol sa bakkan jiital la bu boobaa kilifa rek moo la mën a téye kilifa rek moo la mën a defal moo tax ku amul kenn ku naan la defal nga def bàyyi la bàyyi kooku mbiram wóoru ndax bakkan nit bakkan mën na ko yilif bu la sa bakkan nag boo amul kenn ku naan la déet bu boobaa say mbir dara leeru ci moo tax kenn ku nekk na fexe ba am kilifa ndax ni ma ko waxee woon bi may tàmbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko ne royal da ko am ñu ko jox ne ko joxañ ne ko say kilifa te moom ku ne xam ne moom la yàlla tànn yonent bi wëlbatiku saxaaba yi yàlla ne leen jël leen yonent bi def ko seen kilifa yonent bi wëlbatiku ne jullit ñi sama saxaaba yi def leen leen kilifa wax ne wat waxtu wu nekk danaa yabal ñuy yeesal diine ji ñu di ay kilifa kon bu ñu demee ba diine ji nit ki amatul kilifa na xool boppam dañoo xam ne am ndeysaan euh, suñu <laughs> saaliwu radiallahu taala anhu amoon na suñu baay bu baax boo xam ne da ko sees woon day mag lool boobu ci mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa euh, sëñ saaliwu di ko gunge ba ci buntu oto bi mu am lu mu koy wax mu taxaw am ci taalibe yi xaw a jege mel ne ku naan ko sëñ bi daa soluti dàll kat waaw boo gaawoon <laughs> xam naa mu ne ko dama koy yar <laughs> di la suñu sari alhamdulilahi rabbil alamin moom mu boole ku ma yar ba <laughs> xoolal fa mu toll rek ak ak ni maanaam ngir wane la rek nit ki day day da joxe da doon joxe misaal rek loolu lépp xëy na ci kaf la waaye doon joxe misaal rek wane ne kili nit fu mu nekk daa war a am kilifa kon kenn wërta weesu am kilifa kenn wërta ëpp am kilifa kon am kilifa moom ci li ñu dimbale ba nëgëni la nun murit yi moom bokk na ci li ñu dimbale am kilifa moo tax nag dañ cee war a ngoy bu baax a baax kenn ku nekk am kilifa booy am kilifa nag fexe ba am kilifa gu mat kilifa loolu rek mooy wax bi waaw booy am kilifa fexe ba am kilifa gu mat kilifa kilifa goo xam ne dalay teg ci yoon jàpp naa ne kilifa gii ñu àndal si Maam Mor ku ko xamoon danga xam ne ku àndoon ak moom mi ngi la doon teg ci yoon ku amoon xam-xam ku bëggoon xam-xam ku fonkoon diine ku fonkoon ak taalibe loolu dañ koy ñaanal fu mu toll ndax dañ koo dañoo am dañ koo séqoon moo tax ñu di ko ñaanal di ñaanal njabootam gi yoonam mu jaaroon yàlla saxal leen ci liggéey bii ñu taxawal nii lu dal xel la lu lu lu dal xel la ku fi ñëw rek sa xel sa sa sa xol day sedd sa xel day dal ndax dangay xam ne lii lu ko neex lay doon ñu nekk ci barab bii di dolliku suñ diine di waxtaane suñ diine loolu moom am naa lu mu yaqiin ci ne lu ko neex lay doon moom kon loolu ci wax wax ne war nañoo am war kenn ku nekk war naa góorgóorlu ci am kilifa kon xay na bi may mujje bi may mujje ci yi nga xam ne munta ñàkk mooy jéem maanaam li ñu yàlla nga dafa ngànnaay loo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu wax ne ngànnaayul jullit la muy ñaan ñaan addu'a silaaxul mu'min ñaan dafa am solo lool lool lool ndax waxtu nekk dalay day tegtale ne yow yow nangu nga ne ab jaamu yàlla nga nangu nga ne looy defit suñ borooma la mën a dimbale moo tax di ñaan yàlla ngannaay la lu mag a mag a mag a mag di taqoog tudd yàlla ngannaay la lu mag a mag a mag ndax buñ nee ngannaay la du rek du du du du rek li ñuy ragal waaye même crise yi ñuy nekk muy jafe-jafey koom yi jafe-jafey nekki ay jikko yooyu yëpp nit ki bu dee ñaan suñu borom subhanahu wa taala mën na koo dimbale boo demee ci masaliku jinaan sëñ bi am wax na fa lu yaatu ci wàllu ñaan ñaan dafa am solo lool ndax day tegtale ne nit ki nangu na ne suñ boroom lépp ci loo xam la nekk ma li ñu suñ baxaar di ko wax ne jàmbaar amul kuñ dimbalee am kuñ dimbalee am ndimbal nag moo tax dañ koy sàkku ci suñu borom nit ki jullit bi fu mu war naa taqoog ñaan fonk jaamu yàlla yi fu mu jullee di ñaan yàlla musal ko ci li muy bëgg a lim lim ragal waaye ñoddil ko lim bëgg ca ñaan nag da caa bokk lool da ca am solo lool di tuub dëkke tuub suñ tubaa daana wax ne lépp lu ngeen di yootu bëgg koo jot na ngeen dimbali koo tuub lépp lu ngeen di daw lu ngeen ragal bëgg caa mucc na ngeen takkoo tuub loolu dajale woon na njaaree mag ñi bañ jullee wax ne nañ julli ñaar rakk jiite leen ñaar rakk wax ne nañ ci yéene tuub xutba ba mu leen xutba ca la waxaale woon loolu ne lu ngeen bëgg mucc na ngeen muccandikoo tuub kon même jafe-jafe yi àdduna boo ci bëggee mucc da ngay taxoo tuub kon ñaan ak tuub ngànnaayul jullit la kon lañ koy gànnaayoo nañuy taxoo tudd yàlla ndax kat képp koo xam ne wan nga ginnaaw tudd yàlla seytaane dana la mën a jekku te seytaane nag bari na lu ñuy dugg lu ñuy nekk loo xam ne moo ñu cay moo ñu cay xiirtal te seytaane lu naqaree mucc la lu may dellu ci suñu borom rek mooñ ci musal ndax yi may wax yépp seytaane da ciy laxasu crise yépp seytaane da ciy laxasu te sëñ Tuubaa waxoon na ci masaalikul jinaan ne seytaane da dul bàyyi seytaane ab xeexam di jeex la muy njëkk yow mooy bul def lu baax waaw bu julli jotee seytaan day fexe ba dox sa diggante ak julli nee waaw bul julli nekkal ci li nga nekk rek li nga nekk daanaka julli la ba nga bañ a julli kon mu am ndam daal di dem waaye soo mënanteeg moom bay julli lu ne dana ko dugal ci sam xel ba doo mën a teewlu moo tax seytaan du la bàyyi da ngay gis ñoo xam ne bu ñuy julli rek ci la ñuy régler seen problème yépp day mel ni boo toogee sa yitte yi du ñëw ak problème yi waaye booy jullee problème yépp ñëw jóor ci sa kanam day mel ni seytaane day bàyyi ba ngay julli mu mu mu mu bëgg doo teewlu la wax ne naar ba <laughs> di di taay di taay di taay waa ji waa mooy benn waay boo xam day taay di taay bu yàgg rek au lieu que mu wax asalaamaaleykum mu ne naar bi waxul dëgg naar bi waxul dëgg <laughs> xam naa ma nga doon calculer di calculer di calculer <laughs> mooy wane ne seytaane du la bàyyi waaw du la bàyyi boo demee ba teewlu it bay julli danaan la gaawal yitte yi day teg yitte yi sa baraw lu ne mu ne la dana la raw gaawloo la ca yow boo yàkkamti ba noppi boo demee da ngay toog di naan ataay waaye ngay toog di seetaan télé mais julli gi day mel ne moom daa yàgg da ngay yàkkamti booy ànd ak imaam sax yàkkamtee génn jàkk ji te boo génnee doo def dara kon seytaane moo la yàkkamti loo même boo téyee boo téyee seytaane yàkkamti woo ba julli julli bu dal bu tey defe ne mucc nga déedéet seytaane day dellusi na si yow yaa man gaa yi jàmbaar nga de gaa yaa ngay waxtaan fee yow fexe nga ba julli ba nga yëg julli gi ba gis sa bopp boo gisee sa bopp mu yàqu wa rubbama ibadatin kasira xat afsadatha lahzatun xaqira bari na jaamu yàlla bu baree baree bari goo xam ne ba nga ko gisee rek gis ne def naa dara rek yàqu na boobu man jaamu yàlla da ko war a war a koo gis kon yooyu ay ngànnaay la yoo xam ne euh, dañ koo tënk noonu rek lu xool li xaj ci waxtu yi di ñaan suñu borom subhanahu wa mu defal ñu tawfiq dimbale ñu bañ musal ñu ci crise yi saxal ñu ci yoonu njub boo ñoo ak suñuy kilifa ba li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg moom nun moom ñu mucc ci crise yi te li ñuy musal ci crise yi moom bëgg bëgg fàggul nañu lu baree bari fàggul ñu dëkk boo xam ne lii may wax yu baree bari boo nekkee tubaa doo ko xam fi ne léeg nekk tubaa boo fi yàggee boo demee ci beneen dëkk sa fit boo wàccee rek sa fit day dem ndax dangay gis loo xam ne yow da koy fàtte gis col yoo xam ne gis ku yarub cigarette sax boo nekkee Tuubaa yàgg fi boo gëjee génn boo génnee sa fit bi day day day tëf tëfi ndax li ngay gis miinoo ko woon kon ñu xam ne li ñu Sëriñ Tuubaa fàgg bu lu rëy la nañ ko sàmm nañ ko sàmm te mooy kilifa yi nga xam ne ñoom la lanu Sëriñ Tuubaa booleel ñuy xool fañ ñuy joxañ ñu nekk fa ànd ak ñoom ci li sëriñ bi bëgg loolu buñ ci saxee danañ mucc ci crise yi ni nga xam ne nam ni mu demee ba fu sori suñu borom sànnal ko ko mu dë muy dëkk boo xam ne ku dem ci mat la mu fausi ni gis li mu fi ñaan lépp kon loolu ko bëgg nañu mucc ci crise yi kon nañ bàyyi xel loolu yàlla kon ñu ngi yemale foofu kàddu bi di jéglu bu baax a baax di siyaare bu baax suñu kilifa gi suñu àll yi di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko moom it di koo xam ne ku ne xam na ko ci bëgg xam-xam ak bëgg lu baax ak nangu cee sonn yàlla yàlla kàttan ko suñu soin ñu koy ñaanal mook ay rakkam ñun ñëpp suñu borom sàmm leen aar leen ñi ak ñi ànd ak ñoom ci liggéey bi yépp ca nekk ci jàkka ji ci bis ci barke weeru koor wi yàlla ñu yàlla defal tawfiq jéggal ñu suñuy bàkkaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu barakallahu fiik jasakallahu yàlla dëgg yàlla li ñu séntu woon ci yow ba jox la thème bi gis nañ ci lu koy njort astihatul muslim fi muwaajahatil azmaat wax dëgg yàlla indi nga ko leeral nga ci lu bare bare bare kon ci tënk rek ñu indi ci tënk rek ñi nga xam si njëlbeenu jataay bi da leen rëccoon ñu tënkal leen ci bi ñuy door a tàmbali Mouhamadou Bachir Kane indi na fi ay aaya yu am solo yoo xam ne dañu ko jàngal muy shahr ramadan allazi unzila ñu ubbee ko jataay bi bi ñu noppee sëriñ Mamor Fall jàngal nañu fi xasiidatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ci njàngin wu rafet moom it yàlla fay ko sëriñ Saam ci njëlbeen gi wax na ne nit sunu borom bi mu ko bindee daf ko jox am xel yónni ay ay ndaw muy ay yonent ngir lan Ah, dagg lay wi nga xam ne si moo doxoon diggam ak moom ngir yonent yooyu ñooy ñëw di ko gindi di ko wax yoon bi muy jaar ak fi muy moytandiku waaye bu jamono du dox nag ay changement day am ak ay soppiku ay wuute di am ñuy am ñoo xam ne seen bëgg-bëgg bopp moom lañuy topp ba bàyyi bëgg-bëgg li li bokk bu boobaa ay soppandiku day am <clears throat> waaye ci tënk mu daal wax ne nag ngir ngeen xam fan la crise bi di jóge fokk yow ci sa bopp nga xam sa bopp sa bopp nga jéem a xeex ak sa bopp ak sa ruu ndax crise ci wàllu jikko dafa am ni crise amee ci wàllu économie waaye crise ci wàllu jikko mooy bi nga xam ne si moo ci gën a rëy nag ndax nit ñi egg nañ sax ci jaamu alal egg nañ ci ananiya kenn ku nekk sa bopp rek nga jël maanaam intérêt personnel moom nga jiital ci intérêt public bi waaye bokk na ci jaamu alal yooyee nuñ ko mën a amee rek baax na yor seen rato rek di rado bokk na ca lu mel na ki carte nga xam ne wax na ne dem nañ sax ba da ci dépassé lu mat deux cent soixante milliards ngir lan xiirtal nit ñi ci amin woo xam ne si da yomb te du lew waaye loolu ci crise la bokk waaye bokk na ci it càcc gi nga xam ne si ñi ngi koy def sànq rek bi may bi ñuy waxtaan ci wàllu politique bi maa ngi naan gars yi de man seen procès yi gisaguma ci kenn koo xam ne wax na ne euh, sàcc yi dañuy jël ci ñoom ay matukaay ndax euh, développement mënut a ànd ak sàcc nan ngay liggéeyee ba noppi yow loo am rek ñu ne ko toŋeet foofu développement mënu fa am kon sàcc gi moom it matukaay yi nga xam ne si lañ ci war a jël jëriñu ko. naka noonu di seen nit gaañ ko jël alalam loolu it bokk na ci crise bi ndax euh, bokk na ci it crise bi nee na euh, économie euh, maanaam ci wàllu wàllu politique nga xam ne ñoom dañuy wax ne rek fii rek la yem àdduna nga xam ne dañuy fexe daal nañ politique ngir am ci àdduna ndax fii rek la jëm la yem waaye jëmul àllaaxira waaye bokk na ci it ci crise bi ndaw ñi léegi Euh, ci wàllu denc sa euh, sëkkootuñ ci dëppoog kilifa yi waaye dañuy seetlu dëppook seen bakkan rek bu ko defee loolu mooy waral ñuy tuxu ànd ak euh, ka ñu bëgg rek fu ñu mën a nekk ñu nekk fa bu seen appartement daa di bàyyi kilifa ya loolu bokk na ci crise bi bu ko defee nag du yàgg dara sax sëy boobu daal di tas alal jam ca defoon daal di mu daal di koy ñàkk ndax dañoo wax ne ñaari gone fu ñu àndee mag ña ñoo ci war a jàpp looloo taxoon mag ñi daal leen yabal naan leen demal kër diw bu coow awee ñoom ñoo koy ñoo koy réglé kon wax na it crise bi ba tey ci wàllu politique bi guerre gi dafa bari lool ndax dangay gis koo xam ne dañ ko fal rek ci diir bu néew mu am ca loo xam ne day jaaxle sa da jaaxal yow ndax da leer ne saleeram mayu ko ko kon daal jiital intérêt personnel bi ba mu ëpp lool euh, ci intérêt public bi bokk na ci li nga xam ne si eh, crise la waaye bokk na ci ci wàllu économie bu xew-xew amee da ngay gis ñoo xam ne li ñuy jëfandikoo ci marchandise day doon yoo xam ne si day primé chaque màggal da ngay dégg ñu ne eh, jàpp nañ nangam ci ab tonnage boo xam ne si tegu ci yoon baaxut prime na kon ñàkk gi ñuy ñàkka eh, joxe àq yi nga xam ne kenn ku ci nekk société bi la yàlla ci yow nga war ko am doo ko am nga xam ne bu doon téeméer juróom-ñett fukki ya ñenn ñoo koy féetewoo ñaar ñaar ñaar fukki ya ca des ñépp di ay foxoraa mu ne loolu it kiris euh, la waaye kiris ci wàllu diine nga xam ne nit ki day tuddee diine rek waaye pas-pasam da du dëgër am na loo xam ne da koy def ci ngistal ak ci ak ci fàq nga xam ne bu doon dimbalee sax buñ ko waxut ca kaw mën na koo bàyyi waaye bokk na ca kilifa diine mooy ñi nga xam ne si dañ leen a wekk ñuy kilifay diine yi ñuy jéem a euh, jàmm seeni personnalité di leen dàmmte suñu déggee ci ñoom ay rëcc rëcc sax ñu di ko ngandal ak funkil ngir bañ ñu jox leen wàccuwaay waaye bokk na ca jiital guñ jiital seen intérêt personnalité ci wàllu sëy waxoon naa ko waaye bokk na si it njariñ lu teew comme américain yi ñuy wax ñoom lépp looy def rek dañu seet naan ana la jural ci lu teew lum la jural ci lu teew nga xam ne ñoom loo njariñ lu teew rek la ñuy seet ak noo ko mën a amee léegi nag ci tënk sëñ bi wax ne ab julit nan lay eh, def ba mën a jànkonte crise yi ba ci njëkk nee na bu dee mutasawwifoon yi ñoom dañoo wax ne nit ki dafa war a defar boppam defar boppam defal defar xelam yar boppam ba nga xane si ak njub day nekk ci moom bu dee mutasawwifoon yi salafiyya ñoom dañoo wax ne dafa war a xeex ak pas-pas yi nga xam ne si bidaa mu dindi ko ci boppam ba mu set ci waaye sëñ Touba Cheikhul Khadim moom dafa wax ne ngir mucc ci crise yi da ngay fexe ba am tawhid tawhid bu dëgër mooy alimaanu sadiq bàyyi lépp luñ tere te lépp luñ la diggal nga nekk ca bu ko defee kon nga am al imaanu saadiq ci jëf ay ndigal tey bàyyi ay tere ndax ngëm mooy loo xam ne day nekk ci xol waaye cër yi ñoo koy jëfe bokk na ci li nga xam ne mooy woyefal kiris bi mu ne ñu def alxidma fii ma bay na naa ñu fexe bay dimbalante ci sunu biir ndax loolu dana bokk ci lii eh, woyofal crise bi dimbalante nag ci lu ci ci lu yaatu la ci lu yaatu la mu ne bokk na ci li koy war a woyofal ci tënk rek ci li ma jot a karmat mooy ñàkk bëgg àdduna ndax bëgg àdduna moom ku mu nekk ci sab xol lu ne mën nga koo def ngir bëgg ngir am ko ndax bëgg àdduna moo indi bëgg njiit mooy tax nga sàggan ci àllaaxira doo ko bàyyi xel waaye bokk na ci li koy woyafal mooy ñu bëgg xam-xam xeex ak réer fexe ba ndaw ñi ñu xam nee na loolu bokk na ci li nga xam ne si euh, bokk na ci li woyofal crise bi waaye bi mu mujjee mooy nag di ñaan di ñaan di ñaan suñu borom euh, baaxal ñu baaxal xol ñi baaxal xol yi te musal ñu ci crise yi nga xam ne si mooy jànkonte ci àdduna bi ñu mucc ci kon ci tënk loolu la fi sëriñ bi indi woon gën naa yaatu loolu dem koo karmatoon rek waaye am na ay personnalité yu fi teew danañ ci tudd ñenn rek bokk na ci sëriñ Aliou Mbacke ibnu Mouhamad Fadil teew na fi naka noonu sëriñ Xaadim Mbacke moom sëriñ Abdul Fatah sëriñ Abdul Ahad Jiili Mbacke sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Jiili Mbacke Fadil teew na fi. sëriñ Galas Mbàkke moom sëriñ Abdul Fattah moom it teew na fi njabootuk sëriñ Fallu Mbàkke doj ñoom it teew na fi sëriñ Alxaaji Mbàkke Jaxate ci njiital sëriñ Amsatu ak rakam ñoom it teew na fi di fàttali rek ne euh, sëriñ Alxaaji Mbàkke Jaxate mi mooy ki nga xam moo yoroon sëriñ Mamor moo ko jàngal alxuraan jàngal ko xam-xam li mu jàng lépp ci moom la ko jànge moo tax euh, saa su ne jataay bi ak njabootam dañuy ñëw moo tax sëñ Amsa ñëw na ak mboolem ay rakam sëñ bi ne eh, nee na bég na si lool ci moom ndax moom sëriñ alxaaji Mbàkke jaxate sëñ bi da ko fonkoon lool tegoon ko barab bu rëy rëy ndax fi jaar ci moom ñoom ci tànk yooyu rek lañ jaar di sàmm kóllëre googu nee na kon mu ngi leen di ñaanal fan wu gudd waa ànd ak wér di ko ñaanal ñépp nee na sëriñ alxaaji Njaay commune rurale ñëw na fi waa daaray sëriñ Siise Faal nga xam ne ñoom lañ darajale barab bi ñoom ñëw nañ sëriñ Mor Mbacke ñëw na waa Njaayeen ñoom ñëw nañ sëriñ Seexuna Mbacke Modou Habib ñoom ñëpp ñëw nañ kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant mu mel ne kon dañuy jox rek sëriñ euh, Ali mu sànn ci kàddu ñu door a yëkkati jataay bi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi daw ridwaan tamkin ñu ngi nuyu mbooloo mépp nuyoo bu gën a tedd di rafetlu waxtaan wi li sëñ Sam doon waxtaan li liñ ci fekkee bariwul waaye liñ ci fekkee am na solo lool fii laa bëggoon a si ci tàkkusaan sax waaye nag dañ ma sëñ Moussa naan daa daa yërëm ci toogaay bi nga ba 6 heures waaye naa ba ci yoon bi doon ñu ko waat ñu ngi suñu kilifa gu baax gi fi nekkoon muy sëñ Mamor di ko ñaanal yàlla dolli ay leeram ak yërmandeem fa mu nekk tey sant yàlla bu baax a baax te xam ne yaakaar naa fa mu nekk xolam doon sedd guy ndax lim doon ji. mu ngi sax na te yàlla yàlla meññ ci daray sëñ bi ndax lu baax rek la bëggoon a nekk ci bëgg xam-xam bëgg ak jub bëgg taalibe bëgg yar nampatal ci njaboot gi jóge fi leen ba bañ xàmmee mu dool leen ci dem kon nag yàlla neen yàlla saxal ci loolu ñu ngi rafetlu jataay boox duñ ko fàtte mukk ndax euh, wala fi dañuy wax ne maa ci gën a nangam dina gàtt xel la waaye yaakaar naa ci ñi gën a jaxasoo ak moom gën a yàgg ak moom ci laa bokk ndax ba ñuy ànd booba suñuy at neew na lool te ba bi ñu fi jógee mosuñoo re umbante mukk mosuñoo tàggoo njaboot gi yéen ñu fi bàyyi moom lañ may xoole donte nag man jàpp naa ne moom ndax wuti lu bëree bëri euh, na mu bëgg woon xam-xam xam naa ne bëgg gi xañ na nekk na ci man waaye daa am natt mënumaa xam na mu baaxee woon it xam naa ne man baaxee wu ma noonu ndax gis naa jikko yu bari ci moom yoo xam ne nekkul ci man waaye nag la yaakaar naa imaam Shaafi'i ko waxoon uhibbu saalihiina wa lastu minhum lu ñu topp ci sëñ sàmm la'alla Allaah yarzuqanii qawman salaahan gën bëgg ku baax ci lu baax la bokk ndax yonent bi nee na al-mar'u ma'a man ahab kenn ku ne ci ñam bëgg lay bokk man nag bu ma xam-xam te jafe itam bëgg naa ba xam-xam yi lool bu ma baax te bëgg naa ñu baax ñu lool kon nag ñu ñaan yàlla saxal leen ci yoon woowu te mu doon sonn ak di ko jëfee sànkuur ndax tegu ngeen ci yoon bu baax yàlla na ci yàlla saxal te lii rek mooy mooy li fi li taxoon sëñ bi jóg sëñ Tuubaa li wi rëy rëy rëy lu fu mën a àgg lay fondement ba di day ba mooy ab ab sëriñ la ba jàngale rek ba lu cay topp topp ja kon nag sàkku xam-xam ak gindi nit ñi ak teg leen ci yoon rek mooy yoon sëñ Tuubaa yéen a ngi ci góorgóorlu baax kon yàlla na ci yàlla saxal sëñ bi yàlla na ko yàlla dolli leer fa mu nekk wéetal nañu lool waaye nag suñu xel dal la ci yéen ndax yoon wi ngeen jaar kon nag yàlla leen ci yàlla sàmm taxaw leen mbokk yi itam collègue gi ñu sëñ Mamor ñu ngi leen denk njaboot gi ndax lu ngeen doon sàkku ci sëñ Mamor rek njaboot gi mi ngi ci moom te ci la gën a yombe ndax boo wolof yi dañuy wax ne boo boo bëggee ratt aw nag da jël doom ji ci tànk bu ko defee mu defee ne mooy nàmp ndax mu bàyyi soow mu génn kon nag nit ki lu muy bët ci bàyyi maam bu ko jotee ci doom ji wala sët lay gën a yomb kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax yàlla nañ ko fi yàgg teewee te yàlla dimbale lañu bu baax te li ma wax ne sama xam-xam bëri waaye li may li muy néew néew te léegi wax ko li ma xam ko si ne mënu koo wax kon nag ñu ngi sant bu baax baax yàlla nañ fi yàlla dajalaat ba léegi salaamaaleykum wa rahmatullah